ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo doon woowee anti système seen bopp ci nomination yi nga xamante ne jot nañ ko nemmeeku fan yi mais anti système euh, xam nga la yemoon mois de mars fala système ak anti système commencé jaxasoo wala yéen seetluwu leen loolu maanaam Karim Wade woo na ma jëluma ko système bi du jaxasoo ak ñoom yooyu yëpp déggoon ngeen ko hmm. mais mois de mars la yem mars 2021 fa la yem ca lañ jugee taxawal m M2D ña ci bokkoon mooy ñan ñoom bugaana ci bokkoon ñoom ñoom ñoom nu mu sax waa taxawu yeeg gaa yi ñu bari ci opposition bi tey ñoo ci bokkoon. Mhm. ginnaaw bi ñu def yeewi askan bi système anti système gën a jaxasoo après ñëw intercoalition Karim Wade mañ doon bañ woo téléphone léegi ñoo wëlbatiku di ko woo ñoom jaxasoo am na kon système anti système moom yaakaar naa débat boobu deux mille vingt et un la woon. Mhm. bii moom. suppu kànja la ñuy wax kay mais système anti système moom jeex na kii na bu yàgg yàgg yàgg yàgg ndaxte nag nit ki lépp li ngay diwoo maanaam li ngay xeeñ na fekk nga diwoo ko man bi ma gisee waa Pastef ñëw gis nga yàlla moo dimbali sax yenn politiciens yi as néew coow mois de mars ba mu toon waa waa ko Sonko wàlliwu lay def boppam parce que bu ngeen seetloo keroog bi muy wax ci Karim sa Wade ba naan Karim wàdd woo na ma mais jëluma ko ndax moom produit système bi la te ñun bu ñu bu ñu dem jaxasoo ak ñoom ñun ñoo leen di gën a yées baat boobu sax la gën a utiliser ne ñoom bu ñu àndee ñoom ñoom ci boppam ñoo leen di gën a yées ndax ñoom la ñuy dénoncé muy muy loo xam ne tey da nga ciy gis benn yëg sa bopp koo xam ne bu coowu mois de mars ñëwutoon du nawloon teg du nawloon teg kenn moom ci politique. parce que ba mu njëkkee ñëw dane nañ leen fichier ñoom ñëpp dóor bal ñu daanu tuy tuy tuy Abdoulaye Wade Abdou Diouf si produit système bi ba ca Senghor sax. parce que ñoom 1960 la wax ba 2014 bi muy dugg si ci politique nee na ñoom ñi nga xam ne ñoom la fi fekk ñëpp dañ leen a war a taxawal tuy tuy tuy ñu ne këpp léegi bu demee bay kobas doomi ñooñu pour ñu ñëw ci moom xam leen ne coow mois de mars rek moo mën a indi loolu mais bu loolu amutoon sa waay ci kaw bopp nit ñi lay toog di cëppi cëppi day wan ne maa gën ñëpp mais nag Dieu merci ba lu mel noonu am na fi ba xaw koo freiné tuuti sax Ousmane nii muy dundee kus néew nii sax di xaw a maslaa ak ñenn ñi. c'est-à-dire mhm. coow lële la mais bu doon coow loolu du lijjanti kenn du lijjanti kenn la du lijjanti ci àdduna mais nag Dieu merci ba loolu jot na cee am système anti système léegi moom waxatuñ loolu ndax Habib si fu mu ne Aïda Mbodj ne fa waratoo waxati sax baat boobu. très bien Aïda moom foo ko gis rek moom moom jànkatang la soos yëpp la àndal. Aïda moom ñànkatang la soos yëpp la am soos ak Diomaye. te soos bu ñëw mën da nga yóbbaale mère la rek moom amul problème ñànkatang la soos bu ñëw yóbbaale ko. loolu moom du problème président Lamine euh, par rapport ak euh, li nga xamante ne moo jëm ci euh, système beeg anti système. moo yor DER. DER muy financé. dinaa fa dem sax laaj ko ba xam dina ma mën a financé am déet. nga de kenn la def waaw non affaire. Euh, amee <laughs> li Alassane wax am na solo parce que je pense que Mimi Touré aussi c' est l' expérience hein. quoi qu'on dise c' est fonctionnaire bu mag la woon dellu si ci réew mi occupé fi ay fonction yu am solo ministre de la justice premier ministre euh, nekk sax présidente de chambre donc je pense que c' est am na expérience am na expertise en même temps loolu moom kenn mënu ko ko bañal man fi may amee problème ak politiciens yi rek mooy ci seen gëm-gëm en fait waaw ci seen gëm-gëm quoi parce que gëm-gëm bi day changer mooy li ma doon wax sànq rek c'est-à-dire tu changes euh, voilà d'opinion en fonction de ta position soit tu dans le pouvoir wala dans le l'opposition mu am ay questions yoo xam ne nii nga koy analyser demain tu te dans le pouvoir les même question nga bëgg ko analyser neneen man loolu mooy sama problème ak politicien euh, maire Mimi moom euh, voilà bi mu nekkee tête de liste Alsaan mu ngi koy rappelé léegi mook mook Sonko la directement hein parce que daanaka ñoom ñaar ñoo doon ñoo nekkoon ci terrain bi ñoo daan jokkalante demoon na sax ba ne ko Macky n'a pas xaw ma l'agenda de Sweet Beauté <laughs> loolu moo ko xam nga nag moom xam nga pànk la nag. <laughs> est di ko nëb. waaw xam pànk la nag waaw xam nga loolu loolu yàggul mais aussi dama ko suivre ITV benn euh, interview bu ñu ko doon defal euh, sur la question du troisième mandat tout le monde savait sa position que moom farouchement dafa contre troisième mandat mais bi mu nekkee tête de liste Benno Bokk Yaakaar ñu interpellé ko ci troisième mandat bi buggul wax. waaw cest dire loolu mooy suma problème ak ak politiciens yi. quel que soit alpha il faut que ñuy dem ci ay convictions c'est très important parce que loolu tamit mooy indi tey nga gëm nit suba doo ko xàmmee c'est ça aussi le problème parce que nit mën na la jaay loo xam ne yow doo ko sax gëmee da lay jaral lépp mais demain mu ñëw au pouvoir mais même nit ki dootoo ko xàmmee par rapport ak ay convictions am ak ay positions am donc man problème boobu rek laa ci am mais li Alsaan wax naa ko. expérience bi mu am ak expertise bi euh, mën na am lu mu apporteel euh, président ak entourage am parce que quand même ku jiite fonction yu mel noonu euh, boo ñëwee ci bërëb jàpp naa ne mën nga ko améliorer te et je pense que c'est de ce point de vue là lu baax la man nag je m'attendais sax man dama xalaatoon ne sax peut-être gars yi dañ koy dencal la future assemblée. bu ñu amee majorité. loolu xalaatoon naa. parce que si ñoom boo xoolee ni ñuy tegee. par rapport au gouvernement par rapport euh, au yenn postes yi da ngay gis ne euh, dañuy bëgg a euh, rétablir nit ki dans ses dans ses droits quoi entre guillemets. tu deviens la la la de facto la oui, deuxième personnalité de de l'État en cas de vacance du pouvoir. xam nga soo départ donc, son départ son départ. donc mënoo ko jox son départ de Benno li ko indi mooy. après élection bi elle n'a pas été confirmée comme présidente de l'Assemblée sinon tey bu nekkoon présidente assemblée jàpp naa ne ba léegi mu ngi Benno Bokk Yaakaar mi ngi APR non non présidente parce que moom dafa ne moo jiite liste bi donc dafa jàppoon ne logiquement bu liste bi gagné moom moo war a nekk président donc li ñu ko ko deful moo tax mu dem moo tax ma jàpp ne comme dem na fële jouer fa un rôle ba alternance am xëy na gars yi peut-être loolu sama xel mu gàtt ah. c'est que en cas loolu laa jàppoon ne looloo tax joxuñu ko benn poste. parce que peut-être dañ ko réserver le poste de voilà. c'est son parce que foofu euh, en cas de vacance du pouvoir normalement c'est c'est la présidente le président de l'assemblée qui assure loolu. peut-être que loolu tamit. paramètre la boo xam ne aussi mën nañ ko jël en compte mais l'un pense que quand xam naa ne assemblée bii di ñëw daal moom bu ñu waxee ba gars am fa majorité xam nga bee ci kaw table yi lañ yéegoon. bii yoon ci kaw dénk yi dañuy jàppante <laughs> waaye boo ñu xam ko nag lu ci maanaam maa ngi alerté rek. mais pour pourra quand même. waaw ñu bàyyi ñu jàppandu. di langaambitu di di di di di. peut-être que <laughs> eh, xamu leen ñii moo tax. dina am un apport positif. quoi ci mission yi nga xam ne moom loo ko président. bëgg a dénk en tant que. voilà conseil spécial. au représentant du chef de l'État. maanaam poste yi neexal directement de lui. parce que parce que parce que kii nañ ko sax spécifié nañ ko. Euh, mais je pense que c' est un rôle boo xam ne moom dina ko mën a def et puis dina mën a apporter dara président Diomaye. très bien. Euh,